ah barke Seexul Xadim barke Seexul Xadim bax daat bax daat njaay suuf ah mm. mm. ay ate ate ate ate ate ngi nii mun leen a am ndox mu ngeen naan xool leen jomaay li mu defal waa bax daat oho waa sura robinet mbedd bi ci laay sang ci laay sëlmu nii ci robinet mbedd bi ci laay sëlmu depuis juróom benn at a ngi nii mun leen a amam ndox robinet mbedd bi jomaay ubbi na ko ah, jërëjëf Cheikh Tidiane Dieye ñëw leen sang sëlmu ñëw leen sang sëlmu wax rek borom borom am la ilaha illallah at gis ngeen ko tey fii ma wax ak yow robinet baa ngi xel yi. waaw tàngu sëlmu baxdaar. barke Seexul Xadim yéen kenn du yéen kontaan nañ Bassirou Diomaye Faye yaag sa premier ministre Ousmane Sonko Cheikh Tidiane Dièye la nga waxoon def nga ko digi kese moom kenn du ci dumi sa doom ndox maa ngi nii wedd rek wedd rek ngeen man lu ngeen wax ngeen wedd ndox maa ngi nii njaay njaay waaw mani waaw ku fi am kër ci Bagdad ñëwal ñëwal defar sa waaw waaw dafa amuñu saccion bop yi man na 300 amul ndox waaw kon kay ku fi am rebina ñewal defal ci rebina lolem ku nekk alié Baghdad ak fan khaxam ak ndar khaxam dama tal sa salle de bain ba nga tejj ko bu fekke da nga tabax ba pare tejj rebino yo dawal tejj ko sa keur dina fex ak ndox daw len